ahousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda raditu an il mawla taala lasi rabba fuaadi wa ahnaani wa akrim bihi rabba naajeytuhu biya nasiru ya wali kafaytani iblisa inda jeewale asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan dellusiwaat nañ seen jataay bi ñuy wax salafu saalihiina ñu ciy waxtaane mag ñu baax ñi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bi nag ñaanal sëriñ Touba Cheikh Saliou yàlla dolli ay ngërëmam ak leeram ca bar sàqil muhammadiya di ñaanal baax Cheikh Mamadul Murtada sun borom <laughs> defal ko ridan wa rahmatan min allahi al badi te ñaan googu ñu ngi ci yéene wala bépp doomi Cheikhul Xadim ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi di ñaanal bu baax xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadul taxa sunu borom yàggal ko lool te wéral ko ba yéeneem ci liggéeyal Serigne Touba lépp matalee ko nam ko soobee waaye di ñaanal Seydina Amsatu Mbàkke son yóbbu yàlla may ko fan wu gudd lool ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Bamba lépp mu defee ko nam ko soobee te bu yàlla nangoo sunu ñaan fulal na ko ba mu toll ni pepp suuf si ak duusi géej ak ndoxam taw mu mu jagleel ko mbokk yi ni ko waxee woon tey ñu ngi fas yéene waxtaanee ku ñuy wax Serigne Makhoudia Maram Touré. doon kenn koo xamante ni ci magi réew mi la waaye ci magi diine yi lislaam ñi nga xam ne ñoo fi suuxat diine ji wala ñi nga xam ne ci magi ñi e, ñu bari kër këraanoo ci diine ji ba waxtu wi ñu toll ñu di ko fàttaliku nag ñu ngi nii nag toog ak kenn ci njaboot gi mu war noo fàttali maam ju baax jooju nga xam ne moo fi nekkoon e, te taxawoon ci diine ji ba waxtu wi nag mu bàyyi leen ci ñoom ñuy kerkeraanoo ci moom Euh, ak seen taxawaay ak seen yéene ci ñoom it suuxat li nga xam ne moom la fi bàyyi woon muy sëriñ Madické Touré sëriñ Madické ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare di la dalal jàmm bu baax a baax ñu fas yéene waxtaan xanaa ma jox la nga nuyoo baax ñun. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi kasira mbokki jullit yi mbokki lislaam mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare bu baax a baax leen ndokkeel di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawféex defal leen ko yéen ñëpp di jiital nag ci ñaan yi ak ziyaar yi Cheikh mun Muntaqa suñu borom tabaraka wa taala may ko mboolee mébét yi mu yàgg am yëpp ak yi mu am ak yi muy am ci kanam yëpp suñu borom may ko ak dëgër ba mën koo taxawee nu kawe njortam ba yeggale ko fu njortam ñu ànd ko ak moom loolu yombu na suñu borom yal na ko yàlla def te ñu fekkee lépp ci daraje Cheikhul Xadim ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbooleem mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki lislaam bi umma bi yëpp di nuyu it xaasatan mbokki baakul yëpp yi nga xamante ne nii ñoo bokk tund wa euh, di nuyu it euh, sëriñ Balla Xuji mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Moxtaar Omaana di nuyu sëriñ Mor Touré mi xalifab sëñ Mor ma ko jamaram Touré radiallahu taala anhu di nuyu mbooleem mbokk yëpp njaxateeg tureeg silaak ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk tund woowa ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar te di leen tatagal di am mbégte lool nag ci émission bi nga xam ne mooy émission wu salafu saalih di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu gën ko dëgëral te it yokk ko te may ñu ci lu kawe njort di ñaan sëriñ Saliou mi nga xam ne moom la ñu seqal waxtaan wi ci taxawaay bu rafet bi jërë ngeen jëf xam naa baarakallaahu mbokk yi kooku mooy tey sunu gan gin war a waxtaaneel war noo xamaleeg sëriñ bu baax bi sëriñ bi ku bëggoon a xam kan mooy sëriñ ma xujja maram Touré loonu ciy wax tàmbali bi rek waa sëriñ Saalix sëriñ ma xujja maram radiallahu taala anhu moom la ñuy tudde xut bëpp mbaakul ndax sëriñ Tuubaa radiallahu taala anhu moo ko seere ci moom euh, moo wax ne sëriñ Maxu Jamaram ak sëñ Maxtaar Ndumbe ca kokki ñoom ñaar bi maqaamatul xutbaani ya Usma duggee ci seen loxo génnaatu ko benn yoon ba dañ fi bàyyi ko xam nga ne ci tasawuf maqaamam xutbaani ya am na ñoo xam ne sax du am ci ñoom 24 heures ñoom nag bu mu duggee ci seen loxo génnaatu ko benn yoon bi nañ fi bàyyi ko sëñ Maxu Jamaram moomu nag mën naa la wax ne la mooy mbokkum réew mi ndax mi ngi bokk ci néegub géej néegub géej nag bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoom daan nañ falu ci Kajoor bokkoon nañu ci notable yi nga xam ne ñooy yi gën a rëy ci réew mi mu bokk ci askan askanu Touré askanu Touré nag yaakaar naa ne ku ko tudd ku tudd njabootu Serigne Touba Cheikhul Khadim daa xam ne ñooñu am nañu cëslaay ci biir bokkuk sëriñ bi ndax mi ngi dëkk Lappé bokk ci askanu ñuy wax askanu Cheikh Makhtar Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Chérif mi nga xam ne wax nañ ne moo jóge woon gànnaar bi mu ñëwee ñu may ko ku ñuy wax soxna Makhtar soxna Omana Dieng mu am ca Makhtar Omana Makhtar Omana moom nag mooy maami Serigne Mokhou Jamaram radiyallahu taala anhu ma nga dëkk Lappé euh, di mbokkum bu ñu nee mbokkum sëriñ bi doy na ci sëkk ne sëriñ Tuubaa ka mu njëkk indi ci këram di soxna Jature di bàjjan ci sëñ ma xuja maram mii tey radiyallahu taala anhu muy soxna Jature mooy way juru soxna Fat Ja kooko kon yaakaar naa ne de su ko nattable sëñ Balla maam mi nga xam ne sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu si sëñ Basiru euh, cité na ko ci téere bi nga xam ne mooy téere bi ëpp euh, cës laay ci yoonu murit mok Irwa sëriñ Bachir radiyallahu taala tudd na ca sëñ Balla Maam Touré Balla mam Touré moom it yaakaar naa ne di mbokkum sëriñ bi moo ko jege lool. kon bu ñu ko doon wax dañuy wax ne mooy mbokkum réew mi ndax mooy mbokkum yëpp biir kër sëñ Tuubaa gi it néewaa na kër sëñ Tuubaa goo dem te fekkoo fa koo xam ne tey bu sëñ ma ko jëmaram amutoon kooko du am kon kooku yaakaar naa ne mbokkum yëpp la sëñ Saaliwu hmm. ok jërëjëf xam naa jërëjëf tubarkàlla macha allah kon daal doy na sëkk ci taawu sëñ Tuubaa di soxna Faati Ja waajuram bu jigéen mbokkam sëriñ ma xujja mii la ah. euh, loolu doy na sëkk euh, beneen bi ci desaat euh, kon tey ñu dellu si bu fekkee mën nanoo indi comme moom yenn année nga koy appal la gane woon àdduna ak am njàngam ak wala fan la taxawoon ak yooyu waa moom dañuy wax ne mag ñi dañuy indi ci seeni nettali hmm. ne xam nga mag ñi daaw ñu xam ci date exacte hmm. waaye ñoom dañuy wax ne moom bàyyi ko fi ba am ñeent fukki at sëriñ bi doog a gane àdduna benn nettali la booba nag dañuy wax ne amul siqa ñu ne de bàyyi ko na fi ba am ñeent fukki at sëriñ bi doog a woote sëriñ bi doog a woote loolu boo ko xoolee maanaam diggante bi ak sëriñ bi bi mu fi bàyyi ko ak bi fi sëriñ bi wo bi sëriñ bi bi sëriñ bi gane àdduna loolu juróom-ñeenti at la te loolu la koy dëggal mooy jëflanteem ak Cheikh Omarul Fouti radiyallahu taala anhu ginnaaw bi mu defee jaw la ba ñëw Mbàkke Bawal te doon topp leeru Tuubaa gi mm-hmm. dañoo wax ne bi mu ñëwee Mbàkke Bawal te jaare ca penkub Touba. dafa tasik aw nit xamal leen ne dafa am wëllëreem woo xam ne dañuy tase ñoom ñaar ca diiwaan mm. mu ne woon nag da koo joxoon xamal ko ne ko moom mi ngi dëkk ci côté yii mm. ginnaaw ñëw na ba fii ne doon topp leer gi mu bëgg a dem ca moom waxtaan ak moom ngir mu xamal ko leer gi fu mu toll mm. nee nañu kooku moo ko tegtal sëñ ma ko jamaram ca Madina Touré googa Cheikh a Fouti yu dem fa am na fa fukki fan ak juróom ba mu ñëwee ba mu ko xamalee na leeru Touba lay topp it ko jëlee bi ngay wër guddi gu jot dana ma fekk ci sama ëtt bii waaye taxoo koo jóg man mi taxuma koo jot. Mm-hmm. waaye nag bés bu kooka ñëwee képp koo xam ne juuyoo nga ak kooka doo am ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala wala wax nañ la sax bokk na ci li tax Cheikh Omar Fuuti radiyallahu taala anhu wëlbati ko dellu. Mm-hmm. nee na ñu it foofa la toog ba taalif ba téere bi ñuy tudd Rimaax Rimaax yaakaar naa ñi xam-xam xam silsila tariqatu tijaaniya xam nañu ko Cheikh Omar Fuuti keroog bu mu ñëwee foofee ca Madina am na fa fukki fan ak juróom wax nañu dafa wax ne ko indaanee na laa xam ne lu jafe la mu ne ko loolu lu mu doon mu ne ko dama laa indil maa u sam-sam ndax booba la jógee ci jawlaam bi jógee madinatul munawwara mm-hmm. nee na mu ne ko anamu mu ne ko damaa bëggoon defal la ko ci ab kaas nga naan ko yow képp nee mu ne ko déedéet da ma koy defal ci ab kaas même boo ma ko doon defal ci xottu gerte it defal ma ko ci xottu gerte ma sonni ko sàtti ko ca teen ba ma bokk kook ñëpp mm-hmm. ndax lépp loo xam ne mënu ma koo bokk ak samay bokk loola obatuma ca soxla mm-hmm. nee na ñu mu defal ko ko ci euh, ci kaasu ban mu dem sotti ko ca teen ba bu fekkente ne nag am jàngam la mu ngi dalee lappe alxuraan bàyyi ma ko jàngal alxuraan ba mu wattu mu jógee fa dem demeen jaxate demeen jaxate mooy kër nijaayam mhm. ba mu fa jàngee xam-xam ba noppi la ñëw mirina asta wax na ne fa la mottalee xam-xamam mhm. doog a dellu si nag kër baayam baayam jox ko nag ndigalal mu dem sañ ci dëkkam boobee di Madina Touré kër sëñ ma ko jamaram gii tey ñoo xam ne fa la ñuy defee bis ba fa la nga xam ne fa la ko Cheikh Omarul Foutiyu radiallahu euh, fekkoon ba def fa fukki fan ak juróom wax na ne fukki fan ak juróom yooyee nga xam ne la ko Cheikh la ko ganee mm-hmm. nee na ko ba mu dem mu gane ko mu dungugee ko ba mu sori mm-hmm. nee na Cheikh Omar Fouti jox na ko la ko téye ko ba mu dëgër xamal ko ne ko ngan gi ak ñi ma àndal ni ñu baree mm-hmm. nga mën ñoo dékku fukki fan ak yaa ma man man sama morom. Mm-hmm. xamal ko it ne ko positif bii nga am ci ndoxam sam si ma jox ma sam sam mii ma jox la ko nga àttan koo bokk ak say bokk. Mm-hmm. mbooleem fu ma mas a jaar dañoo nga ma defal ko ci seen gimiñ loolu it na ma ne ngëneel lii nekk ci yow nekkul ci ma nekkul ci sama morom. Mm-hmm. loola mbir la moo xamante ne sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu seere na ko ci ay barab yu bari bari xëy bu ñu yeggee ci waxtaan wi. dana gën a dana gën a a a sëñ Mor Maxuja Maram moo ci njëkk bind hmm. li ñuy wax ci ilmul munasaba nga xam ne mooy xam-xami boole alxuraan yi nga xam ne mag ñi xamoon nañu ko nga xam ne ngir nga mën a yaxal alxuraan hmm. faaw nga xam ko hmm. moom it bokk na ci ki nga xam ne moo njëkk bind li ñuy tudde tori mbaakul tor jooju moo ko njëkk bind kon borom xam-xam la woon ba noppi it bu samaanub jamonoom la woon wàllu yu kamaal la woon nit la woon koo xam ne mbooleem bokki mbaakul yépp maase nañu ci loolu. ba tudde bu ñu nee xat xutba mbaakul amul kenn koo xam ne sa xel dana dem ci keneen kudul moom. Mm. te lii bu ñu gënee continuer incha allahu taala sëñ Saliou dana gën a leer incha allahu mm. euh, euh, naa léegi mbaakool damaa gis boo tuddee ci la wala silla wala jaxate nga ne dafa bokk ci askanu mbaakol noonu wala lu tax ñuy wax mbaakol noonu. nga mbaakol euh, dafa mel ne dafa benn nekk benn localité xam nga Cilmaxa moo doonoon seen capital mm-hmm. maanaam ci Kajoor la mm-hmm. waaye ñoom ñi tuddee woon seen bopp mbaakul mm-hmm. dafa mel ne dafa doon benn benn benn com benn localité boo xam ne ay doomi soxna lañu yoo xam ne ñoom ci seen biir dañoo doon jëlante ay soxna du ñu génn it nag seen biir donte na sax léeg-léeg doon nañ ci boole lenn ci ceddo yi ndax ceddo yi kii woon nañu waaye teewut nag dañoo jaxasoo woon ak doomi soxna yi localité boobu nag ay ay ay ay sant lañu yoo xam ne nii yu bari la yu ñu mën a cité Touré ca la bokk jaxata ca la bokk xuma ca la bokk silla ca la bokk jaane ca la bokk ak yeneen i sant mbay ca la bokk muy longoor ak yeneen i sant yu baree bari yoo xam ne euh, yooyu ñooy localité bi nga xam ne ñoom ci seen biir daanaka boo xoolee ñoo doon jëlante ci seen biir loolu mooy localité ñoom bi nga xam ne moom lañ tudde woon mbaakul nga xam ne gis nga ne sax même fi mu ne sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu boo xoolee ci biir këram daanaka li ci ëpp boo xoolee daanaka ci localité boobu la leen la leen la leen la leen la leen yaakaar naa ne euh, ci taarix ci kokki la bokk la ci mbaakul la ba tey xam nga ñoom dañoo jaxasoo maanaam euh, bu dee kokki ci njàmbur la waaye njàmbur ak mbaakul dañuy wax ne maanaam fi ne boo fekk njàmbur mm. da nga ko fekkaan mbaakul ndax ñoom ñaar dañoo am dañoo am ixtilaat waaw soo gu gu gu ci gu parental goo xam ne gu bokkoo la. Mm. fii ne dëkk yi ngay fekk mbaa mbaa njàmbur moom ngay fekkaat daanaka mm. mbaakul fii ne même seeni i habitude ñoo ko bokkule. Mm-hmm. li ñuy ni li ñuy bañ daanaka moom la ñuy bañ moo tax daanaka benn la mm-hmm. ñoo voilà noonu noonu la la noonu la demee loolu mooy localité mbaakul mm-hmm. ah. eh, ñoom lan moo doonoon seen original localité boobu maanaam lan mooy seen vision ak lan lan doon tabax ak yooyu. xam nga maam xaalis da cee wax wenn woy wu am solo daf ne bilaadullahi atyabuha kayooru nee na réew yi boo doon xool li fi gën a neex mooy kajoor mhm. mu ne li ko waral ñoom seen oxygène mhm. maanaam seen ngelaw seen dundin seen bi a mhm, ma ne ñoom mu ne ñoom loolu moo doonoon poussière alquran ak ibada nee na ñooñ seen cere ji ñuy lekk moo doonoon jaamu yàlla ak fanaanee naa fi la ba set loolu moo doonoon bi a boobu moo taxoon ñoom boo gisee ñuy mm-hmm. ñu mm-hmm. wa taala mm-hmm. ak li leen yàlla mayoon ci xam-xam ñooñu ñu nangoo sànni seeni alluwa nangoo sànni seeni daraja ñëw jébbal seen bopp sëñ Tuubaa loolu moo lay wane ne sëñ Tuubaa moom dafa xotti dafa xotti baax ñooñu seen mbir dëgg-dëgg moo doonoon jaamu yàlla ak jàng alxuraan ak jàngale ko loolu mooy doonoon mbirum mbaakul moo taxoon boo gis sax ñu naan la jikkooy mbaakul mbaakul jikkooy mbaakul mbaakul mooy maanaam jàpp nañ ne kuñ gis rek ñoo la war a gën a alxuraan ñoo la war a gën a mën a sàmm ñoo la war a mën a gën a def nàngam mm-hmm. a ah, noonu la demee ñoom ñoon loolu moo doonoon seen seen seen seen seen seen tawqiya maanaam seen adresse mm-hmm. Mm-hmm. ah kon mooy jërëjëf mbokk yi nii soog a dab ñu ngi tey di waxtaane ki nga xam ne moo di Serigne Makhoudia Maram Touré doon kenn ci ni ki nga xam ne moom la ñuy fas yéene waxtaane nii dégg ngeen fii sëriñ ma dikkee toll ci waxtaan wi ñoom daal ay nit lan ñoo xam boo leen doon portale dañuy wax na nit la ñoo xamante ni dañ doon jaamu yàlla di dunde seenu ñaq di di di di jàngale alxuraan. Eh, bi sëñ Tuubaa ñëwee nag lanu ànd ci woote bi te ñoom bokk nañ ci ñi gën a dëggal woote sëriñ bi ndax eh, li ko waral mooy nit ku baax moo mën a seere ci ku baax ak bu ca toppee. dégg nga loolu xaw ma woy woowu nu mu tëddee noonu sax sëñ mu Ka di ko woy sëriñ ma ñaaw sëlla mu siiw ma kaang ma ba war na daara jëne bamba ñaag ma kon day wane ne kon am daara ñoom seen cosaan xamoon naan léegi fan nga bëgg a duggaat nag ñu ñëwaat ci sëñ bi. waaw sëñ Saal xam naa liñ ci bëgg a wax lépp du xaj ci émission bi ndax dundu nit ku baax la koo xam ne. Mhm. dund na juróom-ñett fukki at. Mhm. kon gudd na fan. Mhm. juróom-ñett fukki at nit ki ko dund ca jamono jooju surtout nga xam ne jamono boobu dafa yaatu woon. Euh, lu doon lu sori la waaye ginnaaw bi mu jàngi alxuraan rek ci lay ñëw. nga xam ne doomi soxna yi li ñu xamoon mooy ginnaaw bu ñu demee ba fees dañuy génn seen ëttu baay ngir tasaari diine la jóg nag bàyyam jox ko ndigal mu sañc dëkku boppam ànd ak rakkam ju ñuy wax sëñ Balla Njoora ñu jógee nag lappee tàmbali kaamil bi comme ni ko ñëpp daan defee noonu nga koy dégg rek ci taarix mu ne ko fu nga demee ba ca minal jinati wannaas yi nga sañc foofa ba mu jógee lappee daal di jëm ci jëm ci penku bi mm-hmm. bi muy egsi minal jinati wannaas wax nañ ne mooy fa dëkk bi njëkk a nekk. Mm-hmm. moo daal di fay sampu donga yi mu àndaloon dañoo wax ne booba jéggi na dayo ndax mm-hmm. bari waay ba. Mm-hmm. mu digal leen <coughs> kenn ku nekk koñ bu nekk ñu jàng fa ñeen fukki kaamil alxuraan ngir ñu sañee ko dëkk ba. mu bokkul ak moom lam fa jàngal boppam. wax nañ ne foofee dëkk na fa ñeen fukki at. yoo xam ne dëkk ba kenn faatuwu fa. waaye nag dañu wax ne at mu jot dana lakk. diirub ñeen fukki at yooyu mu wax ne ab jullit fépp fu mu nekk diir bu toll nii te kenn faatuwu fi. war na faa tuxoo daal di fay tuxoo dem ci fa nga xam ne mooy feetee nga xam ne fa la ko Cheikh Umarul Fouti radiyallahu taala anhu fekkoon daal di sañ sanc foofa foofa nag yàggu fa dara mu daal di koy dikkal dogalu suñu borom bi muy dogal ci ñëpp. Mm-hmm. denc ko ca penku pencam moomee. Euh, sëñ ma xujje nag ak dundam sëñ saaliwu mm-hmm. dund gu doy waar mm-hmm. ci wàllu tab. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, li mu ci diggee ci tab ñëpp xam nañ ko. waaye moom wax nañ ne ak tabam. loxob ndeyjooram mi comme ni ko yonent bi diglee mhm. li muy def loxob càmmoñam bi daawu ko xam mhm. ndax da daan nekk ba guddi nga xam ne dekk nañ ci digg nawet mhm. ñëpp seen i sàq fëgg mu ànd ak taalibe yi ñëwaat ñu dem ci ay sàqi boppam mu jël ay sàqi boppam yi remplir ko sàqi donk yëpp ak waa dëkk ba ci guddi gi te kenn du ko xam mu dellu siwaat loolu yaakaar naa ne mbir mu màgg la ndax lasina yaamaluuna alxayraati bil xafiyi ñooñu am na lu ñu leen dig te mooy ñi nga xam ne li ñuy def seen loxob nday joor di def seen loxob càmmoñ bi du ko xam euh, wax nañu it ne cig sàmm moom moom sëñ moo ko jar radiyallahu taala anhu euh, sàmm gi jéggi woon na dayoo ñi ngi ciy nettali rek mag ñi ngi ciy nettali benn xisa ñu ne dafa am bi su mu toog ci pénc mi am bëy wu ko romb mm-hmm. nee na mu laaj ne ku moom bëy wi ne da koo bëggoon mm-hmm. nee nañu ba ñu xëyee mu yónnee ca borom bëy wa ngir jënd ko. Mhm. borom bëy wa xamal ko ne ko bëy bi dafa dee ci bi ci guddi. Mhm. mu daal di koy wone ko bëy wa loo ko waroon jaay loo koy jaayee. Mhm. mu xaymaal ko njëg wax ko ko mu yëkkati ko jox ko ko ne ko mën naa am ne xool bu sew bi ma ko doon xool ak cofeel ga mën naa am loolaa ko lor mu faatu. loolu ci wàllu wara la bokk. mooy te sa xuquuq yi nga xam ne mooy xuquuqul jaar. sa diggante say dëkkandoo loolu it sàmmin wu ci rafet la woon. beneen bi ci dolli ku sëñ Saliou xam naa temps bi muy gën a dem. mooy moom nit ku wilaaya gi foo ko takkoon rek weesu na ko. Mm-hmm. am na ku ñu wax sëñ Soubayrou Jaxate. Mm-hmm. sëñ Soubayrou nekkoon na xalifab sëñ Mor Sassoum mi njëkk a xil nekk xilaaf xalifab sëñ Mor sëñ maam Xalima Jaxate. Mm-hmm. nee na seen bàyyi sëñ Mor Sassoum Jaxate. ku ñëpp xam la. moo doon taw xaali. danaan jékki-jékki rek ku amoon àll daan jékki jekki rek daw wuti barabu sëñ ma sëñ ma jamaram nee na bu dem fa am fa ab diir nee bu dellu see day ànd ak ñàkk ñu ne ko waa foo demoon mu ne Cheikhina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu moo fi jaaroon léegi di siyaare ji sëñ ma a maram moo ma taxoon daw di fàttali ñu yëg moom sëñ Tuubaa wax nañ ne mag ñi dañoo ñëw di ko siyaare ci njaareem ku ñuy wax yoro maram sala mu dugg ci biir génne ab këll ne ko këll bii boo demee na ko fonk ndax moom laa mujj a bokkeek samaam ci géej gi daal di koy xamal ne ko samaam day wàllu yu wuy dund ak wu faatu fekk ni ma fekkee ci géej gi boole kook laxasaayam ba amut wenn wàllu yu ma fekkee noonu sëñ Cheikh Makhtar sëñ Sidil Makhtar mii nga xam ne mboq la woon te jege ñu woon lool. dafa nettali ne. sëñ Touba wax na ne. diirub muy nekk ci géej gi. li ñuy tuddee salaatul maktubaat muy maf salaatul mafrudaat yi. juróomi waxtu yépp bu koy julli saa bu sëlmalee dana fekk sëñ Moukhou Jamaram nekk ci wetam. sëñ Touba nag lii mu wax ci yoro maram ci këll boobu sëñ sëñ Saliou. Mm-hmm. waxu ko ci moom rek de. Mm-hmm. sëñ Touba ci boppam moo doy waar. Mm-hmm. dafa am ko ñuy wax dafa am ku ñuy wax sëñ Baba mm-hmm. sëñ baabandiir ma Ndiir faa booy mooy maamam. Mm-hmm. ña nga dëkk ci Ndiir Bousso foog maa war na ko xam ko xam seen kër gaa ngi fii ci penc mi. Mm-hmm. waa kër waa kër sëñ Baba Ndiir dañoo ñëw di siyaare sëñ Touba ci njaareem. ba ko nuyoo ba noppi xamal ko mooy kan xamal ko fa mu bàyyi ko xamal ko it ne ko sëñ Baba sëñ ma Ndiir faa booy mooy saa maam. sëñ Touba dana ñokket dugg ci biir. génne yatu jalambaan. ñëw jox ko ko ne ko yat wii. sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ma waxoon ne ma boo gisee sa Mandiir Faa Booy na nga ko ko jox kon yàgg naa am ñooñu loolu moo waral ñu doon ay murit na ñoom sax ay xaadir lañu ñu woon aslan dégg wax bi bu baax xibaar yu bel noonu sëñ Tuubaa yàgg na ko def sëñ ma ko maram wax naa leen ne génn àdduna juróom ñeenti at sëriñ bi doo ko feeñ tey boo demoon ca barab ba da fekk ñu maanaam tabax nañ ko fi mu ne lañu ko maanaam fi mu ne tabax dañu ko la ñu ko tabaxee fi mu ne ëpp na 50 millions. Hmm. par rapport ëpp na 50 millions la fa nekk. Hmm. waaye boo demoon tey jën yi nga xam ne moom la sëñ Touba yónnee woon. Hmm. am na sax ñu wax ne Cheikh Ibrahima ca la bokk. ngir ñu sañe barab ba. mag ñi dañoo dem nuyu ko ci njaareem. mu laaj leen seen barabub maam ba nu mu def. ñu ne ko ma fa mu ne leen mbaa ak jur du ko saaw. ñu ne ko aha kay mu ne leen barab boobee jombante naag ak jur di ko saaw. daal di yàpp la joxe ay jëni yër yu bari na leen bu ngeen demee na ngeen ko sange mhm. ñu ñëw sange barab ba mhm. dañoo wax ne mbaakul at moomu fépp fu waay nekk mhm. yanu nga aw jën andi ko fa sange ko barab dem nañ ba barab ba daf nga xam maanaam armeel yi ci boppam dañ ko def ay bant ba maanaam jaar sax mënatu caa dugg ngir ndigalul sëñ Tuubaa loola sëñ bi radiyallaahu taala ku ñuy wax sëñ mu ko xujeegool jaxate da ko fekk ca gànnaar mu tëye ko fa diir bu yàgg fekk boobu moom dafa bëggoon tuxu kër ndayam ndax jamono ju metti ji mm-hmm. mu ne comme sëriñ tubaay sëriñam mm-hmm. moom na dem waxtaan ci ak sëriñ bi mm-hmm. ba xam lu ko ci sëriñ bi digal ba mu ñëwee waxtaan ci ak sëriñ tubaa ba noppi sëriñ tubaa téye ko fa diir bu yàgg ba muy ñëw sëriñ tubaa daa tibb suuf jox ko ne ko boo demee defal ma ko ca barab ba boo ko ca defee dana xam ne ci man la bàyyi koo ndax jamono jamay am jot ajjuma ju nekk daanaa fa dem daal di koy xamal ne ko nag dëkk yi mag yi nga xam ne mat nañoo gental kër ma ko jegoo gi ci dañoo wax ne sëñ Maxuja Gawal Jaxate moo tax bi mu ñëwee jógaawaatewul kër Maxuja ba di mu faatoo ñu denc ko fa fee ca armeel yooyee am na sëtam bu ñuy wax sëñ Maxuja umm sëñ Maxuja umm mooy maam yi sëñ Amsatu Mbàkke ñoom ñii ak sëñ Abdou Samad ndax moo jur ki jur seen yaay moo jur soxna Màggat Ture mi jur soxna euh, moom i Busa ak sëñ Maamun Busa ñoom sëñ Maxuja umm moom dañoo wax ne bi mu faatoo boobu mi ngi sëriñ baa ngi ci géej gi mag ñi dañoo am problème luñ ko dëjale waaye fi ñu toog di xalaat dañoo jékki-jékki rek gisu njamala gu rëy ci penc mi. ñu daal di jàpp njamala gi rey ko ndax xam nañ ne njamala moom. waaw ñu daal di koy jàpp daal di koy rey dajal ko ci. Mm-hmm. bi sëñ Touba jógee ci géej gi mm-hmm. mag ñuy jógee fa dem di ko ziare ji. Mm-hmm. mu leen sëñ ma ko jow mu ne leen anam ñu ne ko moom koy bàyyikoo na fi mu ne waaw ndax keroog ba mu fi bàyyikoo ndaw la ma leen yabalaloon. ndax yegsi na. mag ña ba ñu seetantalee ñu ne ko waaw yegsi na kay muy njamala ga mun leen manoon naa ko defu nag mhm. wala ma def ko gëléem waaye damaa xam seenu sàmm mhm. ba kon du ngeen ko laal mhm. moo tax ma def ko njamala gi nga xam ne kenn moomu ko bu ñëwee da ngeen am sañ-sañub laal ko kooku sëñ ma ko jamaram moo jur bàyyam kon moom waxuma sax moom jëmmi boppam yi waaye li soqi koo ci moom wax naa la léegi ne la mooy maami sëñ Abdou Samad ñoom mooy maami sëriñ Saliou ambassadeur ñii ma lay tuddal ñëpp ci biir kër sëñ Tuubaa ñooñu bu sëñ ma ko jamaram amutoon du ñu am mooy seen maam kum ci jurul maamam jur baayam. Mhm. jur jur ki jur ndeyam. Mhm. kon mooy seen maam. aslan euh, ñooñu ma la tuddal ñëpp ci ci moom la ñu bokk. Mhm. Euh, moom ci boppam nag moom sëñ ma xuja ñi ma la ko waxee léegi euh, Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu wax naa la ne la nga fa woon. sëñ Fallou mi dañuy wax ne waa Inoumane Jaxate dañuy wax ne. Mhm. comme dafa jaxasoo woon ak ñoom. nee nañu fajar la daan xëy bu xëyee day dem ca barab ziar ko. Mhm. bu wëlbati ko doo a jaar ci ñoom. nee bu ñëwee dañu fekk yër yi day tooy ndax lay bi. Mhm. mu xamal leen fa la bàyyi ko woon. barab bi nga xam ne fa la sëñ tubaa daan toog di jullee. mag ñi fa la ñu def seen jullikaayu xiit. boo demee dañ koo tabax ba karle ko defar ko ba mu kii nga xam ne foofu mooy jullikaayu xiit ba. Euh, ni ma la ko waxee maanaam mbooleem mbokki mbaakul yépp ci lu wér ñoom ñëpp tey koo ci wax. Mhm. lii ma la wax lay wax. Mhm. ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne wàllu yu kamaal la woon. Mhm. woo xam ne barab ba sëñ Tuubaa dafa waxoon ne. képp koo xam ne. rombe nga ko lu toll ci ñeent fukki kilomètre. na nga fa koo xam ne boo xëyee mën nga faa fanaani na nga fa koo xam ne boo gonte boo xëyee mën nga faa la wax mën nga na koo xam ne boo gontee da nga fa fanaani ko ndax barabub ñaanukaay la dafa am benn pël boo xam ne sëñ Saaliwu mhm. ay nagam dafa réer mhm. ab sàmm la woon di ko wax euh, sugu mhm. nee nañu wër na ko ci diir bu yàgg mun a gis nag yi nee na mu ñëw ba ngëyeen ngay mu laajte ne waa fii fan la ñu ne ko ngëyeen mu ne xanaa fii di soriwut kër ma xujja ñu ne ko déedéet mu ngi ne boo boo doxee ne rek seen ko mu ne xaaral ma jaar fa nee nañu bi mu ñëwee dafa taxaw ci barab bi ñaan mm-hmm. sëñ ma ko jëmaram wilaaye gi ñu koy jiiñ bu fekkee ne dëgg la mm-hmm. sama nag yooyu di fanweeri nag mm-hmm. na feeñ te bu ci wenn manki ku ñuy wax sëñ ma ko ja Bakar nee na sàmm bi keroog sama kër la fanaan borom nag ya nee na sama kër la fanaan nijaayama nee na bi mu fi jógee jëm kokki kàdd bi mu doxee tuuti la fekk fanweeri nag yépp góor ñëpp it maase nañu ci ne amul kenn koo xam ne taxaw nga ca barab ba te ñaan fa suñu borom tabaraka wa taala nangut ñaan lu wér la. kon sëñ Saaliwu dañuy wax ne waxtaane gaa yu baax yi ci la yërmaande suñu borom loolu xadis la wala wax la joo xam ne euh, ibnu xuyayna nettali na ko ci wax ju wér kon waxtaane gaa yu baax yi yërmaande suñu borom tabaraka wa taala da ciy wàcc waaye li nga xam ne moom la histoire boobu tënk ci dund gu toll noonu mëni su ko tënk ci fanweeri minute wala une heure de temps wala xanaa dañu ciy waxtaan rek loo xam ne comme màggal gaa ngi jub si ñu waxtaane ko tooyale ko xoli bokk yi ak euh, soppe yi xam ne ñu fa ñëw incha allahu taala. wax jërëjëf barakallah kon xam naa dañuy dugg mu kii ci moom ndax jabootoon naag nan la fi bàyyoon ak taal ban la fi taaloon boo xamante ni bëggut woon mu fay ba yéen a ngi koy dekkal nii wala yéen a nga ja. waa moom njaboot gi nag euh, bariwul ndax xam naa ne yaakaar naa ne du ëpp juróom ñaar mm-hmm. njaboot gu jigéen gi foog naa ne ñaar lañu mm-hmm. moom ci boppam it dañuy wax ne kum bokkal baay ñaar lañu. Mm-hmm. Mm-hmm. nee nañu sax seen nit yi démb yi dañ leen daan wax naan leen ñaari doom yi mbond asta yi di ñaar képp. Mm-hmm. néew bët néy bët. ba noppi dar àdduna. loolu lu doy war la. kon njabootam bariwut. ni ma la ko mën a waxee bariwut bari gu am solo. waaye ñoom ñëpp nag kenn ku nekk ci ñoom. maanaam mën naa laa wax ne la wilaaya gu mat sëkk ngi woon ci yow. ndax ñoom ñoo ñu ma la tuddal nga xam ne ñooy njabootu boppam gi sëñ ma xujj umu mii ma la tuddal léegi rek kenn la ci nga xam ne ab sëtama mhm. ndax moo jur baayam mhm. euh, sëñ ma xujj gool jaxate mii ma la wax ab sëtama ndax moo jur baayam mu fekkee woon sëñ Tuubaa ca gànnaar mhm. euh, ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ci moom lañu la ñu bokk kenn ku nekk ci ñoom mën naa laa wax ne la xaafisul quraan la woon ab yarkat la woon jaxasoo woon na ak sëñ Touba jaxasoog baatin ci mag ñooñu ma lay tuddal kenn ku nekk ci ñoom jaxasoo woon nga ak ñoom jaxasoo jaxasoog dëkk ba yi doonoon dëkk boo xamante ne mboolem nit yàlla yëpp seen wàccuwaay woon sëriñ Basiru radiyallahu taala anhu hmm. ab dëkk ma woon daana fa yàgg lool hmm. wax nañ lu mu gàtt gàtt daana fa def ñaar fukki fan hmm. sëñ Cheikh Mbacke dañoo wax ne daw fa jóg maam Cheikh dañuy wax ne am na bis mu ñëw fa am lu mu doon seet ndax booba wax nañ ne njaarim booba neex na. Mm-hmm. mbir ya xéewal gi bari na. Mm-hmm. te am na ay bokk yoo xam ne ñoom ña nga woon ci biir kër ga. Mm-hmm. booba it am ay mbir yu fa sànku. maam Cheikh Anta doon ko topp wax nañ ne ñëw na fa yàgg na fa. ba mu ñëwee it mag ña téye nañ ko fa ab diir. ba gunge ko muy dem waaye mu wax ci nag wax ju am solo. mu ne ba muy dem nee na xam naa ne li may sedd mu ngi ci biir dëkk bi. waaye borom dëkk bi ci boppam moo nanguwut kenn ku nekk ci biir suuf si ñu fi xotti ndax wax naa la léegi ne la dëkk bi borom da koo sañe hmm, diirub ñeen fukki at yoo xam ne nit faatuwu fa hmm. at mu jot mu lakk hmm. loolu ca yàlla dogaloon mag ñooñee nag ñoom ñooñu seenu njaboot amu ci kenn ku génn biir ka sëñ Tuubaa gi du jigéen du aw góor amu ci it keneen ku jël weneen werd ndax wax naa la léegi ne waxoon na Cheikh Umarul Fuuti yu ne ko kookee du bokk ci samay sët bokkul ci say sët waaye bu ñëwee woote képp ku wuute ak moom dootoo def lu suñu borom gërëm ci kaw suuf moo tax njabootuk boppam gi amu ci kenn koo xam ne da nga koy dégg mu di xaadir moom ci boppam xaadir la woon. Mm-hmm. xaadir la woon. dañuy wax ne Cheikh Omar bi mu ñëwee na ko ma nettali ne na ma booba maam xaali. Mm-hmm. wooyam woowu muy woy tey laaj fan lay jëlee ab sëriñ. Mm-hmm. booba bëggoon naa gis ko bokk ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wa jox ko werd bi. waaye boo fekk na ko mu génn àtte ji. nga xam ne Cheikh Omar diirub mu fay nekk maam xaali nekku fa. am na ñu wax ne bi ñëwee ñu wax ko ko nag ci la defee xalwaam wu yàgg woowu ba ku ñuy wax Samba Jaada na ñëw fa. may ko werdu Tidiane. waaye bu ma la bëggee wax daal mooy nun amuñu lenn ndonal ci ci moom lu dul ndonal jàng alxuraan ak jaamu yàlla. Mhm. ak dundew ñaq ak lan ak tamit dundal liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne moom la ñu batale woon ñu ne ci. Mm-hmm. loolu mooy wiraasa mooy wiraasa wi nga xam ne moom ci la ñu nekk ci la ak njabootam nekk guddi ak bëccëg. Mm-hmm. ñu ngi sant nag di ñaanal bu baax it xalifaam bi nga xamante ne mooy sëñ Mor Touré mi nga xam ne moo fi nekk tey di ab sëtam. Mm-hmm. nekk xalifa bi ñu ngi koy ñaanal bu baax ndax jàmbaar la lool ñu ngi koy ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala gën ko dëgëral. te it euh, may ko tawfeex ba mboolem fi nga xam ne fi la baayam yi ak maamam yi jaaroon. mu am ca moom lu kawe njortoom. sëñ Sall ah. bon doon wax léegi bis bi ngeen koy ñaanal nii ak di ko fàttaliku lan mooy sababu bis bi. Mhm. bis bi xam nga ren sax dañuy wax ne mooy vingtième édition yi ndax amoon na bu njëkk ba mu yàgg mu mel na lu xawoon a taxaw waaye bi ñu ko tàmbaliwaatee di ko doxal ak léegi. Mhm. dem na ci euh, ñaar fukki at. Mhm. sabab si mooy hmm, mag ñi dañ ko daan ñaanal. ci hmm, di ko jàngal alxuraan di ko ñaanal ngir yërmande suñu borom di wàcc ci moom. jëf yëpp day dagg. Mm-hmm. ba mu des ñett la yonent bi wax. Mm-hmm. lu mu fi bàyyi woon ci xam-xam. Mm-hmm. teen bu mu gasoon. doom ju koy ñaanal. loolu sababoon na mag ñi daan ko ñaanal. bi mu demee ba mu kii it bi ñëwee ñu jël relève boobu. waaye ci biir loolu bi ñu demee nag ba xam ne moom ci weeru baraxlu wii la fi bàyyikoon donte na xamuñu bis bi mu fi bàyyikoo waaye ci biir weeru baraxlu la fi jógee. ñu ne kon nañ koy jàpp ci benn pan bi wala ñaari fan yi. loolu moo sabab ñu di ko ci jàpp di ko ci ñaanal mm-hmm. ngir yeesal suñu borom tabaraka wa taala di yeesal yërmandeem mm-hmm. ak njëggalam ci moom te li nga xam ne moom ngay ñaanal waaju baax mm-hmm. bu ca doon am fukk yow da nga ci am téeméer loolu nas ci doon am fukk yow da nga am téeméer doom ji ñaanal baayam loolu ci sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk mu kon loolu mooy sababus bis bi nga xam ne moom la ñuy def bañ ko sax duñ ko def màggalu guddi dañ koy def màggalu bëccëg goo xam ne bu ñu xëyee jàngal xuraan jàng xasida euh, bernde bu ñu demee ba kii ñu waxtaan ci ak dundam ak taarixam waxtaan ci lislaam ak loo xam ne mooy valeur yi nga xam ne mooy valeur yi lislaam yi ak yi nga xam ne it mën naa tax gone yi dérapé wu ba génn ci yeneen yi loolu la ñuy waxtaane ci yooyu ci waxtu wu nekk saa bis bi ñëwee jërëjëf euh, léegi dëkk ba boo nu doon wax fan la toll ci développement ak yan ñoo fa am ak yan ñoo fa amut ak dëkk ba nan la placé woo ci wetu kajoor googu ngay wax. waa fi ne moom mën naa laa wax ne lépp am na fa. Hmm. ndax am na courant am na ndox. Hmm. am na ay forage yu jeex. Hmm. sëñ am sëñ soxay bu. Euh, ñu koy ñaanal bu baax au passage ndax moom jàmbaar la fa. ndax yaakaar naa ne moo fa indi courant ba. def na fa ay forage yu bari. ña ngay bay mbayum maraîchage. macha allah ubbi na fa daaree alxuraan yoo xam ne gone yee ña ngay jàng di mokkal. Mm-hmm. Euh, ànd ko nag ak famille bi yëpp. Mm-hmm. njaboot gi yëpp. Mm-hmm. ñu ànd ca mbooleem nun ñii ñëpp kenn ku nekk it daanaka boo fa amut kër gu mel ni kër gi nga am Touba am nga kër gu ko xaw a jege. kon ma ngay dox ci wàllu développement. ña ngay jàngal xuraan mi seen cosaan. ña ngay bay mbay maa nga fa. ku bëgg a bay mbayum nawet boo demee suuf sa yaatu na ndax suuf sa titre foncier la woon. soo xam ne moo bi ñu ko mujjee xool rek dem na ci sept cent yi quelques hectares yoo xamante ne nii ñoo ko moomal seen bopp. wax nañ sax am na benn buur bu ñuy wax euh, may sa may sa may sa tend wala may sa tend wéjji wala. may sa biiga teeña xaw ma ku ci doon waaye ci kenn ci ñooñu dañoo xam ne da ko mas a wax ne ko dama laa bëgg a dogal ak mbooy koo xam ne da ngay taal fu mu yem ma may la ko ci sàmm gi ma la doon wax mu ne ko loolu li ciy loru ci ay mbindeef mhm. kenn xamut nu mu toll mhm. te bu boobaa it suufu si jàmbur ngay jël joxe mhm. nga xam ne loola moo tax mu gàntal suuf sa waaye ci tund mbaakol yi ku fa ëpp suuf amut bari na ci tund foo xamante ne nii tey mm. foofa la ñuy bayee mm. ñoo leen di dogal ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy bay waaye ñooñu it mm. boo leen xoolee ci biir dëkk ba la ñu dëkk daanaka ndax ku fa amut baay am fa maam kon ñoom ñëpp daanaka fa la ñu bokk waaye ci wàllu développement li ma la wax mooy daanaka lépp am na fa xañ na daal buñ dee wax dañuy wax ne amagut hôpital maanaam lu mel ne hôpital wala nangam wala nangam yu mel noonu tey yooyu xëy na ñu ngi am yaakaar ndax ñu ngi ciy dox digganteem ak tëli bi 500 mètres la mi ngi ci Kilmaxa digganteem ak Kilmaxa yaakaar naa bu ëppee 7 kilomètres 8 ca lay toll digganteem ak Kër Ngana yaakaar na ay 4 5 kilomètres la. Kër Ngana. kon digganteem ak tali bi 500 mètres la daanaka boo wàccee rek seen ko. fu neex a dem la. tey diggante digganteem ak Touba it boo dawee 30 minutes yegg. kon nekkul foo xamante ne fu enclavé la. fu jege la fu ñëpp xam la. fu neex a dem la foo xamante ni am na courant am na ndox am na yoon. kon sëñ Madické xanaa waxtu wi jeex na xanaa dañ lay. bàyyi rek bu ko defee yow nga seetlu conclure waxtaan wi loo xam ne laaju nu la ko woon te mu itteel ci biir waxtaan wi moom euh, maram so mi nu koy dàkkan day waajuram waa soxna maram sala mooy waajuram jaxate mooy mooy waajuram mm-hmm. ma nga dëkk ndemeen mm-hmm. dafa bokk léegi wax naa la ko dafa bokk ci néegub néegub géej néegub géej xaakaar naa xam nga leen néegub géej mm-hmm. ñoom bokkoon nañ ci ñu nga xam ne ñoo daan moom kajoor mm-hmm. ñu fonkoon ab juddu lañu. Mm-hmm. ñoom sax dañuy wax ne képp ku ci aawlu ci sa néegub kër ndey boobu ci ngay ci ngay aawaloo xam nga ne mbir mi may sa ngoone mbir mi kodd dañuy wax ne keroog bi mu demee ñu takk lingéer kodd juuf euh, ñu may ko ko te mu wax ne du taawloo du aawloo ci ab géej keroog bi ñu ko bëggee fal dañ ko ne faaw nga bàyyi lingéer kodd juuf doo ko doo ko doo moom kajoor ak bawal mu waatal leen ne moom gërmi la te gërmi ay waxam am du takk mukk ci néegu géej menn moom la ñu wax ne moo ci masa faru ci takku ci néegu géej te teewul ay doomam ak sëtam ñoom ñëpp ci lañ takk kon néeg lañu boo xam ne nii néeg bu yàgg a noob la ñu bu réservé wu boo xam ne it bu fonkoon seen bopp la ñu ci wax ak jëf lu ñu wax loola la ñuy def lu ñuy defit danañ ko seet mu tegu ci aw yoon mu dudd na ci seen biir boole ko nag moom di doomi soxna joo xam ne maamam di ab shérif bu bàyyi ko ca yi mm. ñëw bokk ci doomi soxna yi wax naa la léegi na la bi mu ñëwee ku ñuy wax euh, Abdallah Buri Fall moo ko dalal. Mm. Abdallah Buri Fall moom nag wax naa ne mooy maam yi ñi sant Dieng mooy sa bokk yooyu. Mm-hmm. mooy seen maam. Mm-hmm. moom dañoo wax ne mbooleem penc yëpp a ko dogguli penc yi maanaam ay ndogal ak. Mm. Euh, ngaañax ak. Mm-hmm. Euh, jeereek. nga xam ne tund dëkk yooyu yëpp moo leen moo leen moo leen moo leen moo leen dañoo wax ne keroog bi mu faatoo dañ ko doon xëccoo waaye ñoom ñëpp a ko doggali ci ñoo ko suulandoo hmm. keroog bi sëñ Touba ñëwee jeere la leen xamal ne barab baa ngi fii hmm. barab ba moom la sëñ Saliou digaloon ku ñëw Saliou Dieng ten dëkk fii hmm. moo ko doon moo ko doon moo ko doon moo ko doon taxaw ba defal ko man fan yi ginnaaw rek dem naa fa ñu doon fa teg aw xeeru juma ak daara sëñ Touba keroog ba mu fa ñëwee ñëw na ba ca garab penc ga mu nodd taxaw fa noddal boppam menn moom doxaat tuuti julli mu noddu foofa la ñu def jàkka mooy jumaa ja fa mu jullee fa la ñu def daara ja dama la bëgg a wax rek ne hasard ci biir salafu saalix fenn fu ci gën riis ci réew mi foofa amut te ñooñu ma lay tuddal noonu tund woowu ñooñu ñëpp ñu ngi ci doon keppaaru Seexul Xadim radiyallahu taala anhu loolu sëñ Saaliwu damay wax ne sëñ Touba bu fekkonte ne daa ñëw wax noonu wala ñu kenn xamut ci réew mi man nga waaye ay boroomi soxna di doomi daara. Mm-hmm. jàng li ñëpp jàng. Mm-hmm. mën naa fi la ci gépp fànn. Mm-hmm. am xam-xam am xam-xam. ci gépp fànnu sharia. jàng xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ca wér la ca wérul. mën a firi alxuraan di ay mufassiruna. ñooñee ñoo jël seen alluwa. teg ko ne ca ginnaaw. ñëw jébbal Serigne tubaa seen bopp. ànd ak moom ci liggéeyam. loolu doy na sëkk firnde ci Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu kon moom sëñ ma xujee ci ñu nga xam ne defoon na annonce ci dikkuk sëriñ Tuubaa radiyallaahu am ko ca la bokk ak tamit ci biir kër sëriñ Tuubaa la leen jëmbat kon yaakaar naa daal suñ Saal loolu moom euh, dana doy a tënkan yi insha allahu taala comme waxtu yi mi ngi xaw a xocc tuuti jërëjëf kon tubaar fakal la yaakaar naa waxtaan wi wax te yàlla eh, ak waxtaan wu tasawufe la waaye maandu te mi ngi ci biir tamit ndax boo waxee li nga wax comme ni nga ko waxee wax ne ñoom ay nit lañ woonoo xamante nii daanaka dañ daan bay di dunde te boo xooloon delluwaatoon ca taarix bi gën a siiw ci Sénégal sëñ Mor sa Jaxate di waajuru sëñ Abdoulaat ak sëñ kii waaw gis nga taarix boobu mën naa la bàyyi nga nettali ko rek ndax waaw waaw déedéet loolu sax moom xam nga ko ndax xam nga ah. loolu sax moom noonu am na seen benn sëtam ndeysaan ak ah. kii kii fi kii fi jógee léegi sëtam ndax sëñ Omar Jaxate mi ko jur euh, sëñ Abdourahmane na ko jur moom sëñ Modou Asta waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñoom ñoo ñu ngay gis ñoom ñëpp fi mu ne ñoo sëñ ñoo sëñ ma ko jamaram ñoo bokk lépp ndax soxna Asta Touré mi nga xam ne moo jur sëñ Modou Asta <laughs> ma nga jógee lappe ma nga jógee lappe de mewndu soxna Binta Dun Touré mi nga xam ne moo jur xëri xëri dun mm. moo jur moo jur moo jur euh, nuñ koy waxati ñu moom it ma nga fa jógee mm. euh, bu ma la bëggee wax daal mooy maanaam euh, askan woowu di askanu Touré dañuy wax ne sëñ Saliou dafa am ñaar ñu mas a daje ko sant si Sylla mu ne leen ki ñu ci coowante ñoom ñaar di kalante mm. ne mooy leen ki sant Touré de wóoru ma waaye ñu ki sant Sylla wóoru moom mm. ku ci doon gone da ngay naqare da am fulla mm. waaye bu màggee jaamu ji yàlla mm-hmm. loolu moo doon seen seen seen seen seen cosaan mm-hmm. wax naa la léegi na la soxna ja Touré mm-hmm. sëñ Mbàkke Anta ko njëkk a yor maanaam boo gisee ñoom dañoo jaxasoo ak biir kër sëñ Touba gi ndax fi ne nii euh, xam nga ne soxna Faati Kubra mhm. mi jur sëñ Mor Faati Touré mhm. sëñ Mor Faati Touré xam nga ne euh, baayam Touré la sant mu ta ah, mu yor taaw sëñ Mor Anta Sali mhm. ah nga xam ne moom maam Cheikh Anta ñoo bokk lépp ah ñoom dañoo yàgg jaxasoo ci ak bokk yàgg a jaxasoo ci ci ci lépp kon euh, askan sëñ Abdou Latif mi mu Maam Mor Jaar xanaa ci ci la bokk ndax su xam nga moom it euh, yaayam ma nga dëkk ma moo yaayam maanaam maamam ak sëñ moo sëñ Mokho Jamaram ñoo bokk benn baay. maamam ak sëñ Mokho Jamaram ñoo bokk euh, benn baay. waaw ah, moom it maamam foofu la dëkk ma nga dëkk ma nga dëkk fa ñuy wax Kër ma waaw ah, fa la dëkk. ñoom ñëpp foofu la ñu bokk sëñ Saliou comme ni ma la ko waxee léegi sëñ Mountakha mi euh, soxna Binta Diakhaté foofu la bokk. Mhm. sëñ Saliou. fa la bokk. Mhm. wax naa la léegi soxna Asta Touré. Mhm. ak maanaam boo xoolee ci biir kër sëñ Touba gi amul fenn foo ciy dem foo xam ne bu amul ñoom ñooy seen i maam. Mhm. ne maanaam ñaari askan yooyu dañoo jaxasoo ñi sant Silla ak ñi sant Jaxateeg. maanaam kii day jógee fii dem fee kii jógee fii dem fee. Ah, moo tax toujours dañuy kalante ci yéen da ngeen di jël suñuy jigéen ak dañuy jël seen i jigéen <laughs> waaw. Ah, tubaarkàlla sëñ Sarr jërëjëf jërëjëf sëñ Madické kon waxar waxtaan wi jeex na ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi toogoon dinu nu teewlu te jàpp naa ne wax dëgg yàlla macha allah lim fi nettali te kii dafa bokk ca mag ña mag ña nga xam ne eh, ay mag yu fi yàggoon lan waaye suuxat na fi suuxat boo xamante ni ba jonni tey fi ñu toll kenn mënu ko wala samp na fi samp boo xam ne kenn mënu koo buddi mm-hmm. ndax li tax kenn mënu ko buddi mooy sampub dëgg la mm-hmm. samp boo xamante ni sëñ bi kenn ak wooteeb eh, nu mu tuddee dax xaq doon woote boo xamante ni mu wooteeb dëgg la lu mu yàgg-yàgg rek da ngay mujj di ko gis muy meññi ña fi daan wooteel ak ñi fi tudd ci biir ci ceddo ñu ci bari daanaka xamoo sootu seeni mbir sax mm-hmm. li ko waral mooy ñi jëmoon ci yàlla hmm. kon sëñ ma dikk ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm xanaa jox la nga tàggoo nag ñu daal di tëj jotaay bi waa kay jërëjëf sëñ Saliou ni nga ko waxee rek la ndax hmm, alxaqu saabit hmm. wa wa inhala fa saaxiqun wa saafil loolu sëñ Tuubaa ko wax wala benn saaxir dëgg moom lu mu tuuti tuuti cenneer lay doon boo xam ne ñëpp a koy seen lu ak neen it nag lu mu kawe kawe ci suuf rek lay mujj yam mhm, mhm. wax nañ ne laajoon na mag ñi. Mhm. kenn ci buur yi na leen ana barabam. ñu ne ko kenn xamul fu mu nekk. ñu ne leen mu ne leen ana barabu sëñ ma ko jamaram ñu ne ko ma nga fa ndaa nga ca boppam maanaam defoon nañ fa ndaa loo xam ne wax nañ ne dana duy nangam ci ay bërigo. ñu ne ko ay picc cay naan. mu ne nekk waaye ju baax ak keneen mi ngi noonu. ndax ña nga xam ne ñoo yilifoon jamono ca jooju jamono kenn xamul seen i barab moom maa ngi lay wax léegi ne la baraba lu mu gàtt gàtt lu ma cinquante millions dem na fa ca defar yin wa te njaboot gi ñoo ko defar euh, booleeg sange ga nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa sange woon yaakaar naa ne a ko barkeel euh, kon euh, yaakaar naa ne kum mën a doon rek da nga mën a tiir leçon ci ne lu mel noonu war na la yowin jullit bu mën a doon da ngay jàpp ne jaamu yàlla war na la ba kenn du la fàtte. Mm-hmm. ndax nit ki day faatu waaye ay jëfam day des. Mm-hmm, mm-hmm, te jëfam day des. Mhm. yu mel nii li ñu ci jublu mooy nit ñi di fàttaliku gaa yu baax yooyu. di mhm. fàttaliku seen i hasard. Mhm. ak fi ñu doon jaar ci ay jaamu yàlla ak ni ñu doon def ba am ngërëmal borom bi tabaraka wa ñoom it ñu mën faa jaar. gone yi nga xam ne fa la soqi ko ñu xam ne lii lañ war a def ak lii lañ war a def. ak yàquteg jamono ji surtout ak abondance bi nga xamante ne moo am ci famille yi. ak yeneen yi ci xew yëpp ak drapage yi. loolu dana waral nit ki mën a tarbiya ak njabootam bañ mën a tegu ci aw yoon wan leen repères yi nga xam ne ca la ñu war a sukkandiku xam bi bi nga xam ne ci la ñuy noyyi muy environnement bi nga xam ne mooy seen environnement te environnement wu boobu mooy environnement wu l'islam bi ñu xam mooy mooy mooy sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy sunna salaf gaa yu baax yépp foofu la ñu jaaroon ci noonu la ñu doon dundee ci oxygène boobu la ñu doon noyyi ci la ñu ma doon ma ci la ñu doon màndal seen roo doon ci yar seen yàpp yaram doon ci yar seen yàpp yaram loolu ci yar seen yàpp yaram mm-hmm. ba mën a raccorder seen ru ak borom bi tabaraka wa mm-hmm. kon sëñ Saal ñi ngi lay gërëm bu baax di la sant di la ñaanal di ñaanal mboolem mbokk yi ñuy déglu yëpp suñu borom tabaraka wa taala gën leen a may tawfeex di ñaanal nag suñu xalif bi Cheikh Mamadou Muntaxa mm-hmm. borom bi tabaraka wa taala gën ko dëgëral bu baax a baax di ñaanal Serigne Mor Touré mi nga xam ne it moo yore liggéey bi di suñu xalifa suñu borom tabaraka wa taala gën ko dëgëral moom it di ñaanal bokk yëpp di ziare ñëpp jërëjëf sëriñ Saal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu mbokk yi nu doon déglu kon tey kii moo doonoon tey sunu gan di ma Madické Touré ñu doon waxtaanee tamit kenn ci maam yi mu di Serigne Makhoudia Maram doonoon koo xamante nii macha allah euh, li nga wax ni dama ci seetlu ne waa Kajoor may def anaalis ci waa ci sëñ bi rek damay wax ne waa Kajoor kenn ëppalewu leen ci sëñ bi. sëñ Issa Dieng. sëñ euh, Massamba Diop saam mm-hmm. sëñ Darou Assane Ndiaye. Mm-hmm. ila axarihi ñu mhm. bari ñoo xamante ni mhm. <laughs> kenn ëppalewu leen ci daal waa cumbu leen si la sëñ cumbu leen si la men nga xam ne sëñ Tuubaa bi muy dem sax téeréem boobu kaamil ba la yóbbaale ci géej gi waaw ak ñeneen ak ñeneen ñu sant Jaane sëñ Ablaye Jaane ñoom ah, ñoom ñëpp daanaka wax dëgg yàlla <laughs> waaw tubaarkàlla <laughs> tund bawal daal bawal ak kajoor daal kenn ëppalewu leen ci sëñ bi kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm li moo doonoon waxtaan wi ñu ngi leen di jégg lu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh hmm.